doxee man dama bëgg bu ñuy waxtaan bu ñu joggé ci waxtaan bi ku ci nekk am lu mu fa jëlé allô mais pas pas allô parce que parce que dama mana ah, man man tama abouba ah, ah, abouba bo déggé samay analyse tam yu bëree bëri bëri tam fi mu koy tegaale en même temps moy may ma rek après dina e la defaral dégg déng may ko tuuti rek dégg nga aba ba may ko mu eggali après di nga jox ababa oui ababa ah, man samay analyse yu bëree bëree bëri boo gisee léeg fu ma koy xaw a teg mooy mooy ninki nanka en fait en fait doon nañu jéem a détourner de mais am na message bu mu doon jéem a jàllale tam en fait xam nga message bi muy jàllale tam c'est très important dañ ci waroon a bàyyi xel bu mm-hmm. baax a baax mm-hmm. parce que la fait que mu nañu am na kilifa yoo xam ne ci dëkk bi chaque jour ñu ngi tribunal mm-hmm. di ñaanal xale bu jigéen mi njëkk mais mais ban ban kilifa Sénégal la yàlla may daraja boo am boo xam ne am na odaasu ci wàllum crime mu dem mhm. ñaanal di ñaana nit nit nit njerk xanaa kooku day jege gouvernement bi. yaa warul mën a nekk warul mën nekk benn. kilifa boo xam ne kilifa falaa falaa lay doon rek je pense. mais Ragnar Ragnar mën naa la defal benn parenthèse foofu nga baal ma de ci dog bi ah. waaw. Euh, man lii laa d'accord c'est-à-dire gis nga nit lu métti métti métti. boo jàkkaarloog mm-hmm. nit xeex bi mm-hmm. yow même bu la mënee nangul dee foofu rek parce que nit ñi duñ la yeb dinañ ne pourtant dafa taxaw ba dee mm-hmm. dafa taxaw xeex ba dee bien que ñëpp gis nañ ni moo ko ëpp doole mais dafa xeex ba dee gis nga loolu loolu la ñuy woowee dignité mais wax wax sànni rek dajeeku dem sa yoon man loolu naqari na ma nii nii nii bëggatuma fi sax def une minute de plus sincèrement. gis nga dama bëgg de aba gis nga dama bëgg nit booy def dara nga assume ko mhm. jusqu'au bout. Mhm. ay damay defar ceeb damay lekk ak yu kenn xamul fii non non loolu vraiment. vraiment ça me non non ça me désole vraiment parce que voilà mosuma constaté loolu ci panel bi fii nit ñi toujours dañ doon ñeme débat quoi waxtaan. ci mhm. respect ba ku ci nekk soit man moo convaincre Ragnar. wala soir rek naar convaincre ma mais mhm. quand ta quand ta nga wax ben affaire rek après nga sànni dem sa yone je c'est c'est de l'irresponsabilité ñun on est responsable man je, personnellement je, je je me prends pour une personne très responsable donc bëgg na lépp lu may wax mhm. ma assumer ko je, mhm. té képp ku may jokontel je, je, muy sira muy yow muy ñom ay nana même ay xalé yu jigen yu ndaw dañuy assumer dañuy taxaw wax assumer ko ba mu jeex ay ñoom émi mhm. dañuy assumer ba ba coow li jeex béti même chose loolu loolu mooy problème am moom day assumer man dama bëgg nit buy assumer ñoom ay jo dañuy assumer ambassadeur il assume gis nga nit lu mu métti métti taxawal nga assumer guerre bi nga song ba pare ba guerre bi jeex soit nga dee soit ñu rey la wala nga rey keneen ñu xam ni guerre bi jeex na bu boobaa kenn du la yeb kenn du la jam yaa ngi dégg ah mhm. mais wax juste pour faire un show wax wax ju bari coow li bari affaire yi jaxasoo loolu loolu amul njëriñ man li ma bëgg mooy nit buy gëstu nit da ngay gëstu te sa fet li ngay Pape Ndiaye maag moom métti woon na tuuti. Mhm. mais quand même quand même am na lenn lu ma koy reconnaître mooy lu métti métti métti mhm. dina ko assume ba joxe ses positions même bu dee da nga koy démonter sax quand dina taxaw mu fekkee ko ba nga ba nga ba ko mu xam ne kii kat wekki na ma naa naa gëm yàlla rek muñ. mais wax sànni d' accord ma ci lolu sincèrement je suis pas d'accord avec ça man dama bëgg nit buy assumer ay position ah. mhm. légui ni Ninki nank ma ñëwaat ci mom par rapport ak li mu mujj wax légui ngeen balma ah, parenthèse bi mëna jaxassé sax waxtaan bi mais ma ngi jégalu il fallait ma léral lolu rek pour bara mu xamni ni man frère am la té ma ngi koy déglu bu ñëwaaté dinañ waxtaan ñu léral lolu noonu wax sànni amul njëriñ du du yëfu manam gor yalla du yëfu baye Faal Boy wax dang koy assumer ñu waxtaan ci bam bam jeex toj yah bi ku ci neo xam ne yow li ma doon wax kat ah fi ma ko tegon du du tous leerul ay wax sani la won ki dafa def ay recherche mhm. téye xam-xam ñew tegal mako mu leer ab ah, munu mako dindi ma nangu ne munu mako dindi après ñu joxante loxo ñu ne ok man ma jumon d'accord na ak li nga wax wala man ma la man ma jum bara d'accord na ak li nga wax ñu avancer hein ah. ma lola d'accord mhm. parce que dañ ñu ñep dañu bëgg défar defar ñi ñu ray duñ duñ suñu ay mbokk de mais dañu gis ci suñu bop ci lolu parce que ay sénégalais lañu yaa ngi dégg fii jigéen ñi sax dañuy dañuy assumer dañuy taxaw ñu taxaw ci seen position dëgëral yow nga jéem leen expliquer bu ñu comprendre ñu ne la ah ok finalement j'ai compris ay ñoom nana ay xale yu jigéen yu ndaw dañuy accepter loolu noonu yaa ngi dégg ñoom ñëpp ay team ambassadeur dañuy wax lu leer nañu yaa ngi dégg doomu bi dafa changer turam mais xamee naa baatam ki ci kaw doomu dañuy assumer Sira ken waxu mom moom Mina la yee door sa morom du yàgg bañ lo li xex mais waxtan na day fekk nga am ay argument bo amul ay argument nga nek ci souf di tapoter comme sa morom yi ñi nga xamanteni ni japp nañ ni dañu bëgg déglu bëgg ñoo yegg mais bu kenn di yegg di jaxase nit ñi bëgg jaxase détails yi man man dama fay dabé rek ci panel bi bo fi tous mais dama bëgg nit buy assumer bopam lu metti metti lu guerre bi saf-saf guerre ko bamu jeex nga doora dem voilà donc fofu dama lay wax ni la pam ñay am na benn moment mu dugg prison ba génn bi mu génnee ne man man actuellement gouverne ñi nga xamante ni ñooy opposition opposition bi ñoom laay jàkkaar lool parce que ñoom ci seen bopp am na ay dégâts yu bari yu nga xamante ni dinaa leen sànni ay missile déggoon nga loolu wala déggoo ko. déggoon naa ko. nga foog ni avance bi mu jëloon foofu noonu ña ko fekk ci woon foofu waxtaan ak moom ba tax mu changé position dès que bi mu génnee prison nga foog ni avance boobu noonu dañ ko ko may ne ko garaawul lekk ko jeex na méttiwul voilà déedéet déedéet ma ñu ko lu mu war a liggéey la guerre boobu la nekk ba tey nag moo tax mu indi affaire politique ci biir naan am na ay kilifa yu nekk di doxantu ci biir tribunal bi di di am na ñu pare pour takk ko benn benn système la dafa teg benn stratégie ñëwoon pour gëmloo ñu ko yàlla def ñun ñu teg ko benn bo ñu bokk na ci ñi ko teg pression di ko daaj ay question ba tax mu réer ci li mu doon wax ba finalement mu dugal ko au lieu au lieu mu génne ko n'est-ce pas Mm-hmm. donc loolu bu la mos a réer Ragnar toujours dee ci bàyyi xel ki nga xamante ni mm-hmm. demoon na ba changé sa vest ba nara au au lieu mu continuer ci lancé bi mu nekkoon bañ téye ko ci kaso bi mu génn mu ne man opposition bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di rey làmbañ ñoom ci seen bopp ay ragal lañ ndax ñu ngi ci biir kaso bi di jooy am na ay missiles yu ma leen war a sànni loolu bu la réer mu bu ko mos a bàyyi xel de bugguma waxtaan bi dem ci côté politique mais juste à dire que dama bëgg gis nga nit même booy nekkee booy nekk ci politique ki ngay suivre il faut nga koy suivre ak xel di déglu li muy wax lu mu la wax bu la jaaxalee nga dem vérifier ko de sa fait bés boo ciy wax nga mën a xam li ngay wax fan nga koy teg il faut nga xam li ngay wax fan nga koy teg parce que ñi ñiy déglu bari nañ ay plus de 500 personnes 500 sénégalais fu ñu nekk di wax quand même li ngay wax il faut nga xam ko parce que sinon dina am kenn ku yéeg mu ne la non non li nga wax noonu yépp sànq tu as parlé une heure de temps ne li nga wax yëpp amul dara lu ci tegu ci yoon da nga doon lambatu rek di di sànni di wax di sànni amul dara loo mën a indi benn benn dalil quoi nga indi dara lu nga xamante ni mën na ko étayer pour que les gens puissent vérifier cela et que ñu mën ko ñu mën ko nangu comprendre nga rang naa waaw mais mais ababa xam nga xam nga ninki nank avant avant mu ñuy yóbbu foofu mhm. avant mu ñuy yóbbu si dossier bi tribunal dafa njëkk a jaar ak mhm. ñun ci itinéraire bi dossier bi jaar fa la njëkk a jaar ak mm-hmm. ñu na ah. waaw ci ci policier ñi ko yor ñu ko seen loxo ba xam évident la ba xam dafa tombé wala tombéwul ak man man man xam nga la laa bëggoon ah waaw point boo ci gis rek ba nga gis ne am na importance pour yow nee ma tel point loo ci mm-hmm. xalaat man ma wax la li ma ci xalaat su ko defee après ñu mën a continuer parce que gis nga toujours rek li may wax nii euh, affaire mën ñu nekk di ànd ci benn logique parce que nit nit la rek ak xelam nit mën na ñëw am lu mu wax sa xel jaxasoo ci nga nga nga nga xaw a wu ci côté bobu c'est très normal ñun ñep ay ay nit la ñu yor ay xel di xalaat point bi nga xamante amna lolu la loola jaaxal nee tel point nit ñi doon dem tribunal. non c'est que ci bureau yi c'est que c'est que c'est que man fofu li ma si jaaxal mooy en fait dossier Nabou -hmm. dossier Nabou ak ak Aziz Dabala. -hmm. nan la mëna démé nan la mëna démé ba ba mu jaral. ba ba mu jaral ñuy ñuy ñuy ñi ñu si changé ay commissaire ak dem ci ay di si changé ay avocat ak di changé ay ay ay ay procureur ak mooy ça veut kon léegi kon léegi man foofu li ma fa mën a jàngee mooy dossier bi waaw waaw kon dossier bi dafa linki yegg ci kaw ñoo xamante ni am nañ branlon boo xam ne egg na ci kaw quoi waaw waaw léegi nag ci kaw fu mu yegg waaw ci kaw fu mu yegg ñoom fan lañ sës foofu ci kan lañ sës foofu ci léegi ñi ñuy ah. tudd si dossier bi ñi ñuy tudd dossier bi ñëpp. Mm-hmm. kan lañ amal link ci kaw foofu koo xam ne moo leen war a mën a defal lijjanti loolu ci kaw kan la. léegi léegi ah xam xam nga foofu en tant que ku xam système euh, armée nu muy doxee biir Sénégal ah. que pays yëpp noonu la sax parce que gouvernement toujours bu gouvernement installé woo toujours dinañu. def benn purge parce que xam nga xam nga tey yow yow yow yow Ragnar bu fekkente ne man ma man dama dama nekk euh, ak ambassadeur man je donne exemple quoi man man ambassadeur moom mooy ki diriger armée bi man may président ambassa euh, ambassadeur di ma defal lépp lu ma bëgg ba ba peuple bi yëpp sentir ko xam ni actuellement ni armée bi di def du liggéeyu armée parce que ñi nga xamante ni yow ñoom nga war a protéger yaa ngi leen di duma di leen toroxal n'est-ce pas. Mm-hmm. léegi un jour Ragnar bi ma doon xeexal ba nga xamante ni bëgguma mu mu jot mu jot pouvoir bi Ragnar bu jotee pouvoir bi lan la war a njëkk def. Ragnar bu jotee pouvoir bi. comprendre est-ce que comprendre nga. comprendre naa waaw. léegi léegi Ragnar yow yow yow yaay sama opposant man maay président man ambassadeur mooy sama général moom mooy diriger sama armée man may yónni ambassadeur ne ko yow fexeel ba Ragnar bu mu nooyi moom ambassadeur muy def loolu de foo génn mu duma la fu say mbokk génn say militant fu ñu génn mu yónni ay nit ñu duma la yow yow yàlla def par retournement de situation yow nga ñëw remplacer ma man yow loo war a njëkk def ki la doon duma est-ce que doo ko teggi foofu mu nekk nga xam ni kooku deful liggéeyam. bien sûr. affaire bi c'est exactement assez simple que cela. d'après ma compréhension. noonu la simple yow Ragnar boo jotee ci pouvoir bi ki la doon wër nga xam day toog sa buntu kër taxaw frenkulaay ci sa baxan bi munoo noy sa militant képp ku nga xamante ne mu ngi takk sax sa bracelet mu jël kou duma yóbbu ci kaso bi kooku da nga koy teggi nga xam ne kii mënul liggéeyam kii nekk fii pour peuple bi il n'est pas là pour protéger le peuple parce que armée essence am mooy muy protéger le peuple gis nga militaire fu ñëpp di dawee di am lu ñuy daw militaire bi dafa war a daw dem ci loolu noonu pour jàkkaarloo ji ak loolu parce que lolu mooy liggéeyam moom moom moom loolu nañ ko formé moom loolu la xam yow miy daw danger bi moom dafa war a daw vers le danger pour dem jàkkaarloo ak moom même bu dee def ci ñàkk bakkanam loolu lañ lay jàngal armée <coughs> donc kooku première chose mooy da nga ko war a teggi foofu parce que xam nga ni kii liggéeyam serment bi mu defoon pour protéger le peuple defu ko da nga a teggi donc tombé moo waral ay gaaf loolu kese la léegi nag un manipulateur un manipulateur Ragnar mooy ku nga xamante ne day fekk benn situation mu jël ko tourner ko pour mu nduroog dëgg un manipulateur day insister ci foofu danaan la la moo tax ñu dindi fa diw ak la moo tax ñu dindi fa diw mais diw ak diw yooyu ñu fa dindi ñoom ñoo jàpp ay nit yu nga xamante ni defuñu dara téye leen lonku leen di leen maltraité ba pare di leen déféré ci lu nga xamante ni defuñu dara defuñu dara ñu jël leen defere leen parce que dañoo taxaw ci mbedd bi ñu yuuxu ne Ousmane Sonko wala dañoo taxaw ci mbedd bi ñu takk bracelet Ousmane Sonko lool loolu lañ leen doon toroxalee de Ragnar bu lool bu mu la réer mukk ngir yàlla. ah ok parce que parce que joxoon sa waay mu continuer. voilà voilà. jaajëf maa ngi jégalu bu baax maa ngi jégalu ah, non non débat bi waaw mais xam nga rek toujours man damay bëgg xam nga xam nga débat boobu tam man man li ngay gis nii man bëgguma di focus si débat boobu parce que débat boobu dafa xaw a politisé bu mu ëpp. dafa xaw a politique dafa xaw a politique. Mmh. voilà mmh. moo tax man du si bëgg di débat. waaw mais mais mais quand même quand même. mais nag du dara man du ma épargne dara. man moom lépp li nga def lépp laay xool. li nga def Ragnar li nga def man dama ko saluer avant ma lay jox une réponse dama ko saluer man dama bëg nit buy def recherche li ngay wax nga am foo ko teg parce que li nga wax. man mun munu ma ne rek ne la non loolu du dëgg parce que da ngaa indi une chronologie nga teg benn benn benn yoon bu nga xamante ni forcément képp kuy xalaat da xelam jaar na foofu képp kuy xalaat xelam jaar na foofu mais quand même def def nga effort effort boobu nga def nag moo waral ma jox la une réponse sincèrement quoi voilà donc maa ngi jégalu ñëpp ci kaw ci suuf bu fekkente ne juum mangi ngi maa di balu ak nah, nyep. No non non non lo li nga li nga def kay macha allah macha allah maa ngi di nyep yéen rek ñu defar te ñun ñëpp ñu mbooloo nekk besoin de cet éclaircissement voilà maa nyep. Ya. maa bu bu c'est très clair tonton Abba balaa ngay dem kii Amadou dafa bëgg bismillah Amadou nga dem eh, Amadou oh Abba na ngeen def. ñu mm-hmm. soxna yéen ñi fi nekk yëpp ziar naa leen. Mm-hmm. bi ma dégloo débat bi xam nga d'abord Ragnar dafa am hypothèse bu mu teg. Mm-hmm. hypothèse boo xam c'est tellement scientifique. cohérente aussi. mais yow. Bingé, euh, coupé la langue de euh, de Ragnar. Mm. suggéré tu vas apporter des éclaircissements et des réponses mm-hmm. nettes sur la situation. Mm-hmm. Mais, à mon avis, euh, mm-hmm. tu n'as pas à apporter de réponse. Hmm, amul ben réponse qui kii pas bo apporter par mmh. rapport si sujet que nga xam Ragnar posé mmh. d'abord abord man euh, dissertation si je l'ai évaluer mmh. d'abord, euh, je abord tu es hors du sujet parce que mom, il a bien dit ne peux mënul comprendre lay ananas bi nga xam ne amone problème ak Aziz Dabala léegi lay ananas boobu noonu. Mm-hmm. dem ba si yàgg mu faire mm-hmm. en sorte que Nabou Leye mi nga xam ne moo doon ànd ak euh, Aziz Dabala plus de quinze mm-hmm. ans. Aziz teete ko dugal ko ci lépp. teete ko teete ko ba mu toll fi mu toll peu de sénégalais xam ko. léegi mu jaxase ko Aziz ba ñoom ñaar neexoo léegi lay ananas bi mu amé problème ak Aziz Aziz mm-hmm. momi it delluwaatoon ci Kumba Gawlo sek don ko feccal mm-hmm. ñu dem ba si yàgg Kumba Gawlo sek wara voyager lay ananas euh, fekk mu ngi confisquer euh, le passeport de Aziz Dabala mm-hmm. ba voyage biñ ñu bëggoon def sax mom voyage boobu euh, ko Aziz da ko raté finalement la ko lay ananas jox passeport Mm-hmm. léegi à la suite de ça. Mm-hmm. nga gis ne Nabou Leye ci mm-hmm. biir affaire boobu noonu Nabou Leye euh, kii na ci euh, def na ci ay euh, comment dirais-je manigance yoo xam parce que manigance la parce que mënuñu wax ne Aziz Dabala appartement bi nga xam ne fa le seul Nabou qui avait la clé waali ak Aziz ñoom ñett ñoo amoon kele appartement bi ñoo doon fréquenté ci appartement bi ku ku dugg euh, ñetti ñooñu kenn moo la ci ubbil mm-hmm. léegi assassinat bi bi muy am mm-hmm. Wally était parti euh, il était parti au boulot mm-hmm. léegi bi muy dem léegi Aziz la fa bàyyi bon Aziz bu fa kii ba sept personnes yooyu ñëw dugg fa Mm-hmm. dugg fa ku leen ubbil soit bu Leye moo leen ubbil soit mm-hmm. Aziz moo leen ubbil mm-hmm. point d'interrogation foofu mënuñ ci sori mais léegi bi ray bi amee biñ toogee ray bi maanaam euh, d'abord ñi ko rey man dama ne ay bandi lañ bandi yooyu xam nga duñu ray nit ba pare toog fa di fomp dret di jël ay dara di sàng niw bi di sàng ñaari niw yëpp ñu sàng leen ba pare tëj appartement bi dem seen yoon donc mm-hmm. ku tëj appartement bi xam nga waali rey nañ ko dee na. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Aziz rey nañ ko dee nañ. bon ku tëj appartement bi ce n'est mënul doon kenn kudul Nabou Leye parce que boo xoolee trois personnes yi amoon kele bi ñaari dee kenn moo ci des ki ci des mooy Nabou donc moom moo tëj appartement bi. saa aussi daf ñuy retourner en arrière ne Nabou moom moo fomp deret Abdou Aziz bi moom moo ko sang Mhm. le même naboulé aussi mon deux jours retourné faire semblant appeler la famille d'Abdoulaziz Aziz Dabala mhm. avec euh, accompagné de de de et mhm. le ménager de Aziz et son ami policier aussi qui était venu en civil dans dajji appartement bi appartement il est, elle est partie derrière aussi appeler la, la sœur de Aziz Dabala pour mhm. dire que oui, on a, euh, on a pu ouvrir euh, l'appartement. Maintenant, ouvrir l'appartement dimanche. Maintenant, c'était la police qui l'avait ouvert. Alors que nous avons dit. Les la police nous a appelé, nous avons garde à vie. Mhm. Nous, à notre grande surprise, nous avons quelques jours, mhm. guess Kumba Gawlo Sec, mm-hmm. mi nga xam ne moom ñëwoon na ci dëju Abdou Aziz Dabala bi mm-hmm. maanaam ñëw bi boo xoolee ni mu ñëwoon boo mm-hmm. jàngee euh, comment dirais euh, atmosphère bi nga xam ak discours bi nga communication boo ko da nga xam Kumba Gawlo les mots yi nga xam ne la comment dirais-je prononcé c'est la famille Dabala même le geste qu'elle a fait voyez en le disant publiquement, oui, la, télé qu'elle avait promis à sa sœur, oui, moi je vais, la, euh, je vais prendre ça en charge, je vais l'acheter mhm. une télé, Inch'Allah. Mhm. Vous voyez Ça, c'était mhm. trop, trop, c'était trop petit de sa, euh, de sa part et trop bidon. Oui, parce que acheter une télé qui ne coûte même pas 100 000 francs, 200 000 francs maximum, c'est pas l'appel -hmm. de venir dire ça publiquement. Il est trop, mm-hmm. elle était trop petite. Yeah. Ouais. Deuxième chose, mm-hmm. les ñu gis ko mu toog ak Laye Ananas. Mm-hmm. en pleine cérémonie am pleine complicité Bo Hamne, ça bo Hamne, ça suscite beaucoup de doutes. te Kumba Gawlo Seck boobu noonu ah ku xam Kumba Gawlo Seck xam rapprochement am ak Atepa Goudiaby D'ailleurs même, beaucoup de personnes disent que le setam bi qui ma organisé, bi pas le organisé Atepa la ko parrainé mhm. te pas Goudiaby ku xam pas Goudiaby aussi on mhm. le euh, on le dit vivant ou mourir euh, mourir mais mhm. pas Goudiaby c'est le parrain numéro un de Ousmane Sonko. parrain numéro un de nu Ousmane Sonko. Mm-hmm. et Diomaye Faye même. Mm-hmm. d'abord gis nga euh, li Ragnar wax. négociation mm-hmm. bi nga xam ne moo amoon protocole euh, Cap Manuel bi ah. man suggéré woon naa ko ci benn live le matin live xaw ma Amina xaw ma maman. tu vois. Atepa Goudiaby bi boobu noonu. Maintenant, boo le, li nga indi dialogue entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Mhm. boudé 100% les 60% pour pas Atepa moko ak Ousmane Yara. un milliardaire malien. malien qui était en Guinée qui est l'ami du du fils du ancien président Lassana Conté. Mhm. il est actuellement au Nigeria. Mmh euh, c'est lui-même, on dit même c'est lui qui avait financé la campagne de, l'actuel président du Nigeria. Mmh Vous voyez mmh C'est un gars très riche. Même il a une grande villa à Dakar. Il est l'ami euh, l'ami de Macky Sall. Il a des relations avec Atepa Goudjabi aussi. D'ailleurs, Goudjabi, euh, d'abord euh, après le dialogue boobu Goudiaby bi mm-hmm. même bi ñoom Diomaye nekkee président mm-hmm. Diomaye Diomaye euh, Atepa Goudiaby reste l'homme fort de l'appareil étatique ok même même tey jii ma wax la lenn tey jii loo xamul ah te mm-hmm. sénégalais yëpp xam ko hmm? même Diomaye bu amee benn souci wala benn problème ak oh, comment dirais-je Sonko. Mm-hmm. Gujari, mon moom soldat sol dàllam tànkam dem mm-hmm. régler lolu régler régler le problème entre Diomaye et Sonko hein? et Sonko je te le jure. ok lolu yëguma ko effectivement mm-hmm. Madame, Diomaye et Sonko. ils ont du mal à tomber d'accord sur un sujet jusqu'à présent. ok loolu yëguma ko aussi. en fait, quand il y a souci. C'est à mm-hmm. Atepa Goudiabi, mon moi mooy médiation bi. ok entre le président et le premier ministre. ne c'est qui glissement là, on jetait un coup d'œil euh, mais ce n'est pas l'ordre du débat ce n'est pas le sujet. Mm-hmm. vous voyez mais mais c'était une petite parenthèse pour euh, euh, amener un glissement une parenthèse quoi. Excusez-moi, mmh. mais excusez-moi, Momo. Euh, non, non, non, non, non, non, non, Il avait échoué à tes Et vraiment, Dioma est surtout, il n'y a pas de souci, hein, vraiment. Oui, non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, non, non, continuez là, s'il vous plaît. Les deux, jusqu'à présent, mmh s'il y a un souci entre les deux, c'est mmh Adioba Atepa qui est l'homme qui va, qui fait tout, qui fait la médiation il reste l'homme fort dans l'appareil étatique. bon ñoom ñaar ñëpp dañ de déggal. non non parce que de l'en yàgg a jàppale da leen yàgg a parrainé depuis bi xeex bi di metti, depuis bi ni créé parti Pastef ba tey jii. ma ne boobu parenthèse la mm-hmm. rek mais loolu du sujet bi Manam sujet bi moy lan. waaw mais parenthèse bobu, amna, amna ben point aussi bu nga xamante quand même comme que xas nañ ci dugg il faut que leeral de fay génn su ma paree sama analyse bi yow nga nga nga nga mais mais mais juste un point rek euh, parce que ça, si c'est analyse nga nekk ba léegi mais juste un point Moi, je connais actuellement mhm. en tant que vous M. Amadou mhm. sénégalais le mhm. problème qui existe entre Jomai et Sonko li xew ci biir palais bi wala si biir kër comment vous avez pu avoir cette information que Atepa eu lijjanti loolu noonu juste une question nga maanaam euh, Lolo nono, mënuma hmm. ci souri xam nga lu ci souri parce que loolu du sujet sujet panel bi. et ñun li ñuy xeex ak li nga xam ne ñu du loolu. loolu du suñu problème. manam loolu c'est autre chose. Euh, entre le euh, entre les autorités étatiques. moi je ne suis pas de de l'État. Je ne suis pas de mm-hmm. pasteur, je ne suis pas de, mm-hmm. euh, de, la euh, classe politique sénégalaise, ni je ne suis même pas au Sénégal. OK. Mais ce que j'ai à vous dire, madame tey rapprochement, rapprochement qui n'était pas Kumba Gawlo ak approchement Kumba Ananas mm-hmm. hein? L'église loolu boo ko gisee ak approchement rapprochement entre l'ay Ananas et Naboulé D'ailleurs, mhm. sax il y a beaucoup de gens qui disent que Naboulaye l'ananas de quoi il gérer. -hmm. na ñeneen ñuy wax aussi Naboulaye Kumba Gawla quoi il gérer entre lesbiennes. Nous parlons pour euh, euh, TikTok Manam, entre les jigéen ak les yooyu ñuy def affaire yooyu. Mhm. léegi tey léegi bu là ananas euh, la qui affaire bi jaar na te ñu ngi ci tudd noonu influence bi Atepa am ci état bi encore affinité bi Kumba Gawla am ak Atepa accord mhm. laay ananas lien de xaw ma famille ak artistique ou affinité lu ñu mën a am ak Kumba Gawla ak mhm. kee lu mu nabule yi mhm. loolu dem na crime bu mel nii assassiné deux personnes nabule yi maanaam va et bi mu def ci kër gi ak manière bi nga xam ne moom la doon euh, cëppi cëppee bi mm-hmm. police di ñëw jël Abdou Aziz ak wax yu rëy yi mu ci wax euh, mm-hmm. Abdou Aziz dee na lan mooy problème bi ñëpp ay dee mm-hmm. yooyu yëpp mu def noonu encore léegi ñu tëj ko maanaam même pas deux mois trois mois ñu génnee ko bi ñu ko génnee mu commencé def ay statut di wa ñaawal nit ñi léegi man kooku noonu man ben synthèse rek la ci jox moy lan bo ah. mhm. boo té te boo tay tey crime bi bi amé ba légui gis nga amul ben autorité importante muy classe politique bi muy euh, opposition bi muy pouvoir amul kenn ku ci mës a génn def ci déclaration organisation mhm. ki ñom Jamra ay sàmm jikko ñoo ñep amul kenn ku ci mës wax amul ben chef religieux bu ci mën a génn wax ci Mm-hmm. même euh, les communicateurs traditionnels amul kenn ku ci mës a génn wax ci maanaam amul benn kilifa bo xamné dal Sénégal am na génn nga wax ci wax ci amul kenn ku ci wax dal ñom ñëpp def ne pat. ok muy média bi muy état bi muy autorité religieuse autorité politique bi ñom ñëpp ne pat. Mm-hmm. donc même le président. mënul wax mm-hmm. ne yegu ko yeg na ko yëg na ko le président, il est le plus informé de, dans le pays. D'ailleurs, biñu mhm. biñu biñu biñu assassiné euh, Aziz Dabala mhm. gis nga avant même Naboulé di ñëw di ko kii enseignement généraux yi ñoom xam nañ jot nañ information xam nañ li xew que kañ ci kañ nga ni euh, s'il vous plaît hmm? waaw waaw nga parce que dégguma ne xaw am na lu ma rëcc enseignement généraux yi gis nga assassiné qui euh, euh, Aziz Dabala. Aziz ak oui. waaw gis nga enseignement généraux yi ah. instant bobu dina la waxal ne biñ ko assassiné d'abord euh, dimanche bi lundi. Mhm. lundi déjà enseignement généraux yi jot nañ lepp parce que on est dans un monde euh, moderne l'avancée de la technologie. ok gis nga communication renseignement yi nga quoi les les services de renseignement généraux oui les renseignements généraux. ok ok ok oui oui faire rapidement. Mhm. communication yi nga xam ne fait même une semaine. Mhm. ak euh, ñi mu doon euh, diil ak ñi nga xamné xaritam ko baray Aziz. Mhm. communication yi def enseignement généraux euh, nañ lépp lépp lépp lépp Madame, euh, qu'est-ce qui va se passer exactement mais d'abord ils étaient alertés. ok bi assassinat bi amé ba aussi ñom avons confirmation confirmation Il y a une personne deux personnes qui ont été assassinées à Pikine Technopole. D'ailleurs, mm-hmm. d'ailleurs président rapidement président est informé le PM est informé le gouvernement est informé beaucoup d'autorités euh, était déjà informé. donc nous bu que kirim gens qui nii nag am oreilles euh, sourde oreille bu euh, persiste jusqu'à présent donc affaire bi y a la main des autorités politiques et il a la main des des des associations sombres du pays et moi, sama analyse sama ça bi may conclusion bu may def ci bi ce n'est rien d'autre que des sacrifices sacrifice mais sacrifice aussi du fi. je mi nga pilier bi nga sacrifier Abdaziz Dabala ak Wali mm-hmm. aussi mm-hmm. il son elle attend son tour elle sera sacrifiée aussi et on va voir ñun ñëpp dinañ ci teg suñu bët elle sera sacrifiée bientôt waaw parce que affaire yi affaire u seytaane la ki seytaane la laaj bu laajee lii tey encore nga def ëllëg day laajaat leneen ok voilà ngeen baal ma àq nag loolu rek laa si doon apporter bu dee juum li nga wax leer na nañu. nga wax yow kay wax nga lépp. waaw juumoo de li nga wax leer na nañu. ah bon leer na. loolu rek laa ko gisee. waaw waaw waaw léegi léegi. non point la. no oui. grand Ababa. dossier Aziz Dabala dafa toll foo xam ne ci Sénégal ah. dafa toll foo xam ne ci mm-hmm. Sénégal. du ñu épargner kenn c'est comme ñi néew nekk ci arméeru Yoof yi sax yëg nañ yëg nañ ni am na ku ñu suul arméeru caaree dañ koo rey. dañuy wax dëgg quoi rek naa baal ma mala yi sax mala yi sax non xaaral xaaral rek hmm. xaaral rek ma egg nii gis nga mala yi mënuñoo wax ay nu mënuñoo wax sax yëg nañ ne am na ñu ñu rey Pikine Technopole seen biir appartement lañ leen a rey kon nañu bàyyi hmm. naan ay président yëgu ko kii yëgu ko ki yëgu ko Ousmane Sonko ñu ñëw ko fan man damaa oh. xeex ba naaw mais gis nga lii trop c'est trop rek naa hmm. yëg nañ ko mais mais

invention, avec euh, comment dire, la révolution industrielle, deux mhm. formes de travail. La taylorisation, taylorisation, mm -hmm. la taylorisation, travail en chaîne. Mhm. Mhm. Même s'ils étaient informés aussi, il y a, y a quelqu'un qui doit faire le travail de terrain d'enquête. C'est quoi La police police ñom ñoy ñëw xam nga def euh, première enquête mhm. comme affaire euh, mhm. division des investigations criminelles tu vois kooku bu mhm. jëlé euh, enquête am ba def jël procureur procureur il est le représentant du peuple il est toujours avec le peuple moo procureur d'abord bien ñu ko indilee dossier bi entendre les, entendre entendre les sept personnes daf leen juger ni coupable suspect des suspects mu jël nous, ñoom ñëpp mandat de dépôt Les bi mu mandat de dépôt comme affaire bi day continuer affaire bi day continuer te dafa am te justice mais mais Amadou Amadou nga baal ma de dog bi hein? mais juste à dire que il faut que ñu xaw revenir ci affaire bi tuuti rek point par point parce que quand même il faut que ñu nous comprendre ne ñun fini panel bi gëmuma ne am na kenn ku fi nek ku nga xamante ni day protéger les meurtriers day jéem protéger ñun japp je pense que lolu quand même il faut que ñu leeral ko d'abord hein. muy la première chose ñun ñëpp dañu mais actuellement on peut pas dire que procureur bi euh, am na juger parce que le procureur c'est pas un juge moom mënul juger. non vous m'avez pas compris euh, pas bah. dit que le procureur a jugé. d'accord le procureur. Mm-hmm c'est le procureur, c'est le représentant du peuple. Effectivement. Le procureur toujours il est du mm-hmm. côté des victimes. yeah. Et moi, bi suis manam, euh, ñi nga ne euh, suspecté comme étant des des criminels. -hmm. mu leen dégloo. nga mm-hmm. procureur bu leen dé bu Mm-hmm. madame euh, comment dirais-je euh, vraiment ils ne sont pas coupables mm. ils ne sont pas suspects jox argument yu libérer le même jour mm-hmm. mais bu mandat mm-hmm. donc il y a quelque chose qui est lousse ou bien ils ont donné des versions contradictoires ou bien des versions qui ne euh, ça ne convainc pas le procureur Mm-hmm. moo tax mu yóbbu un mandat dépôt mais si vous avez un mandat dépôt nag dafay le euh, dossier de dépôt euh, de jébal ko juge d'instruction Juste mm-hmm. mm-hmm. juge d'instruction boobu vous ak ay ministre de la justice ak yeneen euh, lobby yi ak état bi ak président bi foofu le le dossier bi mais le procureur la la police de Pékin a bien fait son travail Dick a bien fait son travail, le procureur mhm. a bien fait son travail. Mhm. Mais juste au niveau de la euh, au niveau de tribunal juste d'instruction bi fa le mhm. dossier bi il fa fa le affaire euh, euh, comme liberté provisoire ce qui est inquiétant maanaam biñ joxee avant ñuy jox ma Nabou Leye liberté provisoire sax maanaam ce ce soi-disant journaliste la Pape Ndiaye Pape Ndiaye xaw ma Pape Ndiaye d'abord maanaam ñëpp ku nekk ci panel bi war nga xam ne Pape Ndiaye jubul te du waxkatu dëgg duwul ni ku baax xam nga lu tax parce que Pape Ndiaye bi muy dugg ci panel bi lan la joxe boppam foo noonu la joxe ne ninki nanka Madame tey euh, kilifa gu yam ni mom ak journaliste bi mu akam ak xam-xam bi mu yor surtout côté judiciaire manam buy dugg ci ki bi panel bo xamne nit ñi dañuy ñew pour euh kilim bi nga xamne ne am ci réew mi mom hmm. boobu bu da fa qui joxe exactement man hmm. pap wax li muy wax hmm. mais bu ci leneen rek

yeneen journaux yeb reprendre que est libre point d'interrogation ñu waaw non libéré wuñ ko waaw lolu jargon journaliste le journaliste dafa am ñu mais ñu ngi sondage mhm. sondage la woon mhm. psychologie population bi ak réaction mhm. nan est-ce que population bi est-ce que parce que ils avaient peur que buñ euh, libérer Naboulay sans mhm. préparer le terrain. Euh, ils, inquiétaient que population picking yëpp génn dem de kër Naboulay wala ñu génn tal mairie problème am Lol, qui ont ñu préparer qui les ko des des journalistes corrompus mhm. pour ñu mhm. population Mm-hmm. léegi bi mu génnee coow li bëri affaire yi xaw a kii si leen fële euh, Babacar Touré këwaloo euh, te génn fële moom it moom mm-hmm. pion de Atepa la pion Atepa la mm-hmm. pion Sonko la il est au cœur de l'état mooy ah, Babacar euh, Touré boobu noonu maanaam tey tey gouvernement boo xoolee tey muy lépp loo xam ne xew na fi rek maanaam li nit ñi di wax wax population bi wax rek moom mooy génn lay ko mooy mm-hmm. génn lay ko jël ay ay waxam teg léegi mm-hmm. foofu lañ ko jël recul ko mooy mu génn naan waaw nabuley dañ koo tooñ nabuley dañ koo tooñ nabuley niñ ko mën a tooñi nabuley kenn tooñu ko nabuley d'abord maanaam bu dee deful dara man bu dee deful dara maanaam ci mm-hmm. loolu sax ci analyse mais nabuley daa def nabuley bu dee deful dara lu mu doon tiit di rappi-rappi ak nabuley boo xoolee yow tey nabuley maanaam euh, avant kii bi ray bi mm-hmm. moom ñu bëri nee nañ déggoolutoon a jubóotutoon ak euh, kii comment dirais Aziz Dabala mm-hmm. defatut ñu woon nenn mm-hmm. même bi ñu togg mbaxal sax dañ leen ba boobu noonu jour boobu sax dañ leen doon jubale léegi foofu noonu Nabou Leye nan la mën a accélérer relation bi ba di invité ba organiser ca euh, cant ñu organiser cant ñetti mbaar mu ñu mhm. invité Dabala mu ne demul mhm. Dabala mu demul mu ñëw mhm. forcé ko nax ko bañ ànd dem biñ demee foofu noonu léegi gars yi ko ñi nga xam ne ñoo ko rey ñu ñu ñu am na ñu bari ñu nga fa woon ñu nekk fa di ko yuuxu naan ko góor jigéen góor jigéen bañ commencé fa xeex mu jël ko jël ko dugal ko si otoom indi ko ba ci ab benn lakk taxaw ak moom foofu ba si yàgg mu ñëw ba ci kii ba ci technopole bi foofu noonu mu bàyyi ko fa aussi. Mhm. bi mu ko fa bàyyee aussi parmi les gars yi mu doon amal problème am ku ñëw ne ko man yow laa doon xaar sax nañ dem sa kër. Ah donc bon loolu kan la loolu. waaye mooy. kan ko wax ko yow doon xaar nañ dem sa kër. qui euh, am na benn parmi cette personnes yoy am ben benn bu bu bu bu Aziz fi muy taxi. Mm-hmm. koku kan moko wax ne ko Aziz fi la koy ak xaar ko fee dina ñëw fofu kon yeb am ci am kenn ku nabu waxal ne ko Aziz fi la koy wàccee ah. loolu yeb manam ñun ñep suñu xel mo parce que euh, Aziz ñu ñëw fee ne jaar ci lac bi ba si yàgg ñëwaat tourné waat wàcce waat ko mu ñëw fekkaat fi ko wàccee mu fekk fa waa ji waa ji taxaw di ko xaar lan moo ko wax ne ko Abdou Aziz foofu lay foofu lay ñëwee foofu lay jëlee taxi foofu lay foofu taxawal foofu dina la fa danga ko dina la fa fekk. foofu laa koy wàcce. waaw foofu laa koy wàcce. loolu ku koy wax loolu nabu man loolu loolu xanaa daf ma rëcc Sira wala. wala loolu parce que dañu ne. lay wàccee foofu. waa ji fa ko fekk am na ko fa fekk ci ci ci ñi ko rey noonu. waaw fa lañ jëlee taxi loolu loolu loolu même doomu nabulee bi si boppam sax même doomu nabulee bi si boppam sax moom wax na ko. Mhm. voilà na ko. Mhm. sama papa sama yaay. tali bu mag la wàccee Aziz Dabala mu jël taxi. Mhm. te loolu Fall Ndiaga si ndi ko wax nee na Aziz Dabala fi ko nabulee wàccee taxi bu mu jël. ci ñi ko rey fa la bokkee kenn ki taxi. Mm-hmm. voilà. xam nga fi ñu ko wàccee fi ñu ko wàccee. waaw fi ko nabu wàccee. fi ko nabu lay wàccee mu jëlee fa taxi. Mm-hmm. ñi ko rey fa la kenn ki taxi bi ba këram. moo tax chaque jour fii mënaan leen mënaan leen Aziz Dabala ñi ko rey am na ku fanaan këram xam nga chaque jour damay wax wax boobu mais saa yoo ma ko waxee dañ naan ma déedéet mais man damaa nangu ni am na ku fanaan kër Aziz Dabala jour boobu. oui kooku sax moo ubbi bunt bi. am na ku fa fanaan kooku moo ubbi ñi dugg si ci biir ñu dugg si am na ku fa fanaan. Mm-hmm. Mm-hmm. non. biñ ko rayee ba pare ci la. na waali waali waali waali dafa faa bàyyi dem liggéeyi waali dafa faa bàyyi dem liggéeyi ñooñu ñëw mu ubbi leen ñu dugg def li ñuy def mu xam ne waali gis na leen. right dafa ñu. nit la ñu waali nag waali nag kenn rayulu ko lu nabu Nabou Leye tey man man d'accord naa mënoon nañ ko setal buñ ko setaloon ne rayul Aziz Dabala mais bokk na ci complice yi mais rayu ko mais ki raylu Wally Nabou Leye la mhm. parce que Nabou boobu noonu moom moom dong moo fa xam euh, xam yenn Wally ba xam numéroom ba xam euh, code Abdou Aziz mën a woo kii ne ko kaay ñëwal mhm. booy bi même dafa daw upp jël euh, moto daw ñëw rapidement daw ñëw dugg ci kër gi bi ñëwee moom it ñu saxatoo ko raay ko. Mmh. Mmh. d'accord affaire bi moom affaire bi moom naa la waxal leen métti na de. te mmh man moom moom sama xel. sama xel tey na trop trop trop trop trop trop trop ci ci ci ci kilifa réew mi yëpp muy kilifa politique. ok religieuse yëpp. ok léegi ah léegi Amadou. asalaamaaleykum ñoom dama leen yëddi ñoom ñëpp kenn mënatu ma ci convaincre. yàlla yàlla ya, ziar grand baaba man tëddoon naa ba man tëddoon naa ba pare maa ngi leen di ziar waaw ñu ngi lay bëggee bu baax mon frère nah, Amadou iya. ah man Amadou li mu Amadou man moo ma taxay kay yeewu de man li dégg muy wax nii waaw waaw waaw waaw waaw jag bisa sànq rek parce que parce que oui ma non man maa ngi déglu rek maa ngi déglu bu baax parce que man lii laa bëgg ci panel bi c'est-à-dire que gis nga bu ñuy waxtaan rek fekkente ni mhm. nit ki jeexalul bu mhm. jeexalul nga wax rek après moom du la mën comprendre yow tamit doo ko comprendre ñi ci suuf ñëpp kenn du comprendre maa ngi dégg jag mu wax jag allez maa ngi lay dégg dafa am benn point bu ma la wax après ma bàyyi jag mu wax moom mooy que ni mm-hmm. nga en matière de en matière de infraction bu mënti doon moo xam crime la moo xam délit la gis nga ah il faut que ñun ñuy réfléchir comme ni officier de police judiciaire di réfléchir moom mooy lan moom mooy li ngay wax nga mën ko teg ci ay preuve nga mën a joxe nga mën ko étayer quoi nga am foko tek fu leer pas ay liar ay no gëm woon politique genn na ci diw moy pion diw diw lolou day tax di nga wax euh li nga wax mën na am mu xaw a lu logique mais du am ben preuve bu koy été te te justice ci preuve lay liggéey donc ñun li ñuy def ni c'est pour inciter la justice sénégalaise à ce que ñu ñu tenir en compte point yi nga xamanteni ñun mom lañuy tek ci kaw table bi point yooyu nag il faut que ñun ñu mën ko étayer. pourtant gis nga li ma fi wax. non non non may ma rek waaw may ma illustration. waaw mais c' à dire que man dama temps non non parce que ananas kenn mënu ko relation na ananas kumba gaaw la kenn mënu ko weddi kumba gaaw la Atepa kenn mënu ko weddi. Atepa approchement rapprochement am gouvernement bi kenn mënu ko weddi. waaw non c' non c' à dire que nag enquête du doxee noonu monsieur Amadou. s'il vous plaît <laughs> enquête du parce que du parce que man xamna Amadou Amadou xamna na que Jack Bauer euh, xamna ambassadeur que ambassadeur da fay impliqué wu ci man infraction bu ma def defal nank rek on va partir doucement calmement avec des preuves à l'appui de ce fait ñu mën a ñun ñëpp ci combat bi nga xamante enquête bi dinaa la waxal lenn gis nga même euh, ki bi euh, comment dire emprisonnement bi ni hein bu hmm. doon ci léew mu am démocratie am réew moo xam ne justice bi dëgër na. bu hmm. doon ma wax la lenn magi Abdou Aziz bi nii papa naa kuru sax dañ koy konoon mu ngi ci kaso gi. menuisier bi konoon mu ngi ci kaso gi. ñoom policier bi si mu ngi ci kaso bi ñoom ñëpp konoon ah, dañ leen waroon dugal ci kaso gi. ba jugement ba de jugement. non Amadou Amadou waaw ci loo ci kii ñu doog laa bàyyi. Amadou s'il vous plaît bu ñu waxtaanee rek dinañ. parce que ci nekk waaw waaw defal naa ko ma wax la. non non non non du tout Amadou waaw defal nank rek hmm. ñu ñu waxtaan dinañ dinañ déggante parce que nak Amadou nak Amadou bo jëlé temps de parole da ngay bàyyi Ababa jël temps de parole après da ngay continuer enquête enquête demeewul noonu de ki monsieur Amadou enquête demeewul non enquête c'est pas parce que am na nit bu ñu rey fekk yow yaa ngi ci biir koñ ba wala yaa ci biir kër ga wala yow yow yaa fekkee biñ koy gis c'est toi qui as fait la découverte du cadavre que da nga war dem kaso non demeewul nonu sëñ bi du noonu enquête ci ay gis loolu fii nii dama ko gis waaw mën nga ko gis mais ça dépend des contextes mais ñooñu bi ñu leen enquêté ko kii nii dañ leen après dañ leen libéré doo ko euh, emprisonné ñi nga xam ne le coupables yo yow léegi xam xam nga tey assassiné nit yow ñu assassiné nit tey yow ah man grand ababa

on n'est pas mm. d'accord avec ce qu'il est en train de dire Nous toog du coup de. allez-y allez-y allez-y continue de waxal. waaw Ragnar ñu nous di ñu toog Non, la déglu. nous la ba nga pare. Euh, léegi grand ababa bi ñu lay répondre. Mm-hmm, grand ababa bi ñu lay répondre. waaw mais léegi bàyyil grand ababa moi moi répondre la man li grand ababa li ko may occasion pour moi lay répondre ci que mm-hmm. euh, li nga supposition yi nga indi yëpp point par point parce que boo mm-hmm. indee ben point da ngaa indi ay point yu bare bare bare yeb nga dugal ko ci biir da ngay bàyyi benn point bo waxe sa ben point legui nga bàyyi ko mu répondre la ci sa point bobu noonu. mu Abakara allez mu ci am Abakara ñëwal. waaw bon merci Jacques euh, voilà donc Amadou man man premier point bi mo bëggoon a euh peut-être mu indi la ci sama xalaat parce que je vais pas dire que c'est une réponse à à votre supposition mais dama lay wax li ma ci xalaat man moy euh, on est en train de parler d'un double crime double crime il y a des éléments de preuve qui nga xamante la enquêteur bi di ne parle pas sur des suppositions Amadou Jack Bauer Bauer Ragnar Ragnar ambassadeur donc ñu ngi ci non non non non enquête pas non. enquête des preuves des preuves palpantes bañ nañ ko l'officier de police judiciaire quand il procède à, une arrestation il le fait par rapport à des indices de culpabilité yu nga xamante lay retenir contre la personne bi nga xamante lay viser indice de culpabilité yooyu noonu bu fekkente ne gis nga une faute bu nit def mënoo ko imputer à une autre personne une faute bu nga xamante nabu lay moko def mënoo ko imputer à Amadou une faute bu Amadou def munoko ko imputer une une autre personne gis nga té nit bo gis amna kenen ku mu xam koku amna kenen xam bu link bi nga def yow Sénégal yëpp kasso lañ jëp yow link bi nga def ni parce que diw xamna diw diw mo mayon diw auto wala diw mo moy mo moy mo moy parrain wu diw ñom ñëpp ñu ngi ci biir donc c'est c'est un c'est un dossier politique ñom ñëpp kon kasso lañ jëp mais c'est grave li ngay wax ni et et c'est simpliste nga balma avec tout le respect que je vous dois c'est trop simpliste parce que euh, Nabou xamante nag lay ananas lay ananas xamna na euh, Kumba Gawlo Kumba Gawlo xamna xamna Atepa Atepa mos na dimbali Sonko wala mom moy lijjanti problème Sonko ak il y a trop de choses yu nga xamanteni on peut pas l'étayer yo mënoo ko étayer parce que problème bu am diggante président de la République et son premier ministre yo naka nga mën affirmer fi ci bir panel bi né Atepa Abuja bi moko koy fan nga ko yëgee mon cher s'il vous plaît nañu nañu waxtaan ñu tek dossier bi ci table bi ci on on procède avec les preuves yi nga xamanteni mom mo disponible bu ñu jël euh ay supposition ñu ñu bëgg koo def réalité ku nekk nak mën nga ñëw ak sa benn supposition mais da ngay accepter à ce que les gens ñu def leur motion dire que ne ah ok li nga wax ni am na logique mais quand même amna rupture bu nga xamanteni bëgg naa nga noté ko si tel point wala ci benen tel point mais mëno ñëw parce que fim finalement on sait plus que affaire bi ça c'est c'est quelque chose de politique ou pas on sait pas sincèrement on sait plus D.I.M. Sénégal mais depuis ces derniers mois amna ben une femme bu fiy dugg chaque fois di di xaa xawma déjà genre bobu nonou elle est en train de parler de sa fille bu nga elle a 15 ou 16 ans bu ñu rey à euh, Barni est-ce que da nga dégg premier ministre wax ci est-ce que da nga le président de la république mu wax ci il faut pas qu'on tire des conclusions hâtives et simplistes meurtre en am ça c'est le problème du procureur de la république qui travaille mm-hmm. main en main avec le ministre de la justice bien que ni avons ko y a les renseignements généraux faire remonter les informations au, président de la République ça c'est clair l'air mais est-ce que tu li ministère des mines le ministère des affaires étrangères le ministère de l'intérieur ministère de la justice est-ce que tout ça pendant une journée est-ce que Boko le, président qu'est-ce qu'il peut faire avec ça Kouchinek, il a désigné des gens pour faire ce boulot il a désigné des ministres pour s'occuper de cela il y a des secrétaires généraux et tout nga le président de la république il est chargé de veiller à la sécurité de tous les sénégalais mais est-ce que moi, mooy jël le taxaw ci mbedd bi ne man maay protéger sénégalais yi ku ci pas am chaque individu a une responsabilité tu prends cette responsabilité à bras le corps justice de li ministère de l'intérieur de li ministère des forces armées ainsi de suite Bon nombre de ministères, morts, on ne peut pas imputer une, une, une, faute de communication au président de la République. ou est le ministre de la Justice man bu yow le procureur de la République je pourrais être d'accord parce que le procureur a une situation fu muy Il dafa peuple effectivement dans un tel dossier les gens sont en train de se poser des questions mais li ak li ak li moom moo ci nek. mais loolu aussi mën nañ ko jox ngant parce que un dossier en instruction mu am ay nit yu qui ci biti yu nga xamanteni war c'est possible parce que xaw un lu nek ci dossier bi amna ñu nekk ci biti ñu nga xamante ni sûrement ils doivent être appréhendés am na ñu nga xamante ni ils doivent être interrogés am na ay auditions ñu war a jël peut-être que le mini euh, le le le juge d'instruction va va va donner des des des des ordres yu jëm ci côté boobu ne tel officier de police judiciaire wawal tel personne nga déglu ko wawal tel personne nga déglu ko indil ma tel personne jàppal ma tel personne mais si le procureur de la République sort et étale ce qu'il y a dans le dossier est-ce que ils n'auront pas le temps de fuir je ne sais pas Mais le mais gouvernement ni muy euh, des des conclusions hâtives et simplistes parce que day drogue affaire politique finalement des genre ok gouvernement bi euh, j'ai des problèmes avec ce gouvernement donc les lu je vais appuyer dessus man lola, comprendre c'est juste une sensation il fallait que je me wax euh, l'essentiel, vous avez bien euh, pris le temps d'expliquer, d'expliquer clairement li nga xamantene mom nga vous avez expliqué ça correctement aussi, euh, li nga euh, logique, mais justice du droit est logique, justice qui a preuve Justice ci preuve, quelque chose que l'officier de police judiciaire peut étayer. Des indices de culpabilité de nature à motiver une arrestation le terme bobu la utiliser pour ñu PV ba paré dañ ma ci exemple bi Amadou a été interpellé suivant des indices de culpabilité qui motivent son arrestation pour le délit de tel de vol de vol aggravé ou bien pour le meurtre de Dieu ou de Diou, ou bien pour l'association de malfaiteurs qui a conduit au meurtre de Dieu ou de Diou justice si' encore une fois toujours on a insisté sur ce point dans ce panel ñu bien avant ñuy on avait toujours insisté sur ce point que les individus qui sont interpellés ou bien qui sont arrêtés ou bien qui sont mis sous mandat de dépôt ils bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire jusqu'à ce que jugement am ba ben juge mu taxaw mu ne man décider na ni diw ak diw ak diw ñom ñoo def li ak li tej na len ku ci nek 50 ans wala tej na len ku ci nek 20 ans wala 25 ans il faut que lolu ñu ci baye xel parce que ñun ñun dañu nek ay sénégalais épris de justice encore une fois ñu nga xamanteni ni bëgguñu ñak justice am ci réew mi motax ñu jël dossier bi bo ba di ci wax en tant que des sénégalais nak euh, étant donné que information yi nga ngi ci d'après ce que l'avocat a dit avocat bi wax est-ce qu'il a touché quelque chose comme politique non il a dit que le juge qui a pris cette décision c'est un juge intérimaire il n'a pas la possibilité ni les capacités ni l'autorité de prendre cette décision donc il y a un problème effectivement mais ñun aussi en tant que ay citoyens yo xamanteni xamante nekkuñu ay juriste nekkuñu ay juge on n'est pas des procureurs ni des avocats avocat bi nga xamanteni ñun mom mom moom taxawal famille bi amna lu mu wax il faut qu'on lui permette que moom qui euh, bi mu def demande bi mu def déposer ko chez le procureur général bi nga xamanteni mom mom mo meuna révoquer la décision du juge d'instruction nous, nous ko mën a révoquer mom jotagul réponse boobu parce que ñun ñu ngi en contact avec la famille famille bi ñu ngi en contact avec l'avocat. avocat bi nga xamante ne moom déposé na sur le bureau du procureur général benn demande pour wax ko ne ko décision bi ngeen jël pour jox Nabou Leye euh, liberté provisoire tegu leen ko ci yoon mais bon sang il faut qu'on attende cette réponse réponse boobu bu ko avocat bi amee dina ñëw ci famille bi mu ne leen ah man kat réponse tel ak tel lañ ma jox bu boobaa ambassadeur bi nga xamanteni ni il est en contact entre un DD cette famille depuis longtemps dinañ ko ko wax dinañ ko ne avocat bi wax na li ak li ak li de ce fait ñun mom bu indee information bobu ci panel ñun aussi ak ay nit yu nga xamanteni dañu am xam-xam yu melni ahmadou Amadou yaa ngi dégg euh, ak ñeneen ñom ñep ku ci nek dina ñew mu mëna ñu mëna tek information bobu non su ko défé ñu mëna avancer lolu rek la amone peut-être lu lu peut-être mëna ko yok ci li nga wax mais limay bañ moy ñu indi une intervention bu nga xamanteni simples simple de trop juste ah que bah. ñu lonk ko ñu lonk ko ci politique bu boobaa day ah bah, jaxasoo parce que affaire affaire politique s'il vous plaît oui allez-y merci xam nga li ma la bëgg xamal mooy lana ah? Comment comme moo non non ah oh comment vous voyez non non est-ce que j'espère que moom moo wàcc moom il faut ngeen yégalat ko. yégalat ko je pense pas que am ci quoi mais. non oui ah, j'ai pourtant non non c'était intéressant parce que nga nit bu il faut que il faut que ñu ñu quoi. ko bu dinañ continuer après dans le bon sens mais voilà Grand Ababa, parce que toujours dans ce oh. panel-là, on, on, a toujours dit que ni, on travaille en dehors de la politique. Effectivement. Parce que moi, moi, parce que toujours tu le vois tourner autour du pot, toujours il te revient sur la politique. Nous n'avons pas pour politique. Bon, man, sais pas, c'est la première fois. Parce que souvent, souvent parce que man maa ngi doon seetaan euh, euh, panel bi tey ci suba. il mm-hmm. était dedans ñu ngi fiy doon wax naan mm-hmm. affaire politique. il revient ce mm-hmm. soir encore il nous euh, revient encore sur la politique. on n'est pas là pour la politique. ay éviter. aadama ce sont des choses diamétralement opposées. waaye bien bien sûr. man tëddoon naa ba pare. billaahi dama ko dégg muy wax ma toog di ko déglu affaire bi mu mel comme si il était en train de nous torturer. on n'est pas là pour la politique de côté doomu aadama la ñu rey ci moom duñ fi politique grand jack ay politique bi foofu ñu teg ko de côté quoi politique duñ ko fi Ragnard, Alors, Ragnard, bon, les, depuis, ça fait presque plus de deux, une heure de temps ou 1 heure plus, bien il était en train de nous saouler avec politique. Mais il Abdou, Amadou, vraiment je pense que parce que parce que non non Amadou mën nañu mm-hmm. waxtaan rek ba jubóo parce que sànq ba léegi mm-hmm. ba léegi man damaa toog di la déglu mm-hmm. indil nga ñu fi ay cheminement yi nga xam ni ay président Diomaye Euh, président euh, Sonko bi ñu amee problème kii mu ñëw dugg ki kii moo koy régler ñun on n'est pas là pour ça pas temps on n'est pas là la politique xaar ma pare please xaar ma ma pare please xam nga bi ngay wax sànq man dama dama tëddoon mais damaa toog di la déglu cela ma choqué looloo tax ma jóg dama jóg bàyyi sama soxna ci biir néeg bi daan na naa wàcc comme ça mu mën a wax yow on n'est pas là pour la politique. <laughs> bon nag tooñ naa la nag. <laughs> non on n'est pas on n'est la politique. ay ñaari doomu aadama la ñu jël seen bakkan ñu rey leen. ñaari doomu aadama la ñu rey. vraiment. on dégage la politique là-dedans. wax wax ngir yàlla rek tax. génne politique teg ko nële ñu jéem a xool naka la uh, nit ñi di def ba élucider lii mu leer nañ ci kanamu doomu aadama yi mm-hmm. maa ngi jégalu nag mm-hmm. maa ngi jégalu parce que vraiment itamit nañu nañu xool suñu diggante ak suñu borom daal. nañu xool suñu dëgg wax ak dëgg. waaw politique bi daa éviter de day day day jaxase ku ci nekk am na foo far côté politique. waaw day jaxase ah, ah, ah. on parle de preuve quoi nañu wax ci preuve yi.

panel yi nga xam ne moom la ñuy wax politique mais bu ñu nekkee ci panel bii ni parce que ñaari doomu aadama la ñu rey ñu bëgg mu leer. ngeen dimbali ci ñu ci ngir yàlla yi tamit please on n'est pas là pour la politique nañ génne affaire politique ñu teg ko ne ñu. travailler suñu bopp ak euh, ci kees bi ak affaire yi ñu am ci kanam ñu waxtaan ci loolu. Mm-hmm. buñ ci dugal politique. jërëjëf ah. ma jël parole léegi ah. ma jël parole ma ah. merci merci Jacques léegi bi mais légui légui dañuy baye politique duñu ñu politique mais Pierre Atepa bi mom dossier bi il faut que ñu tudd ko ci. ndaxte moom mooy. voilà ñu nek ci dossier bi. Hmm. légui foofu mom dañ fay yam mais le reste mom duñ fay yegg. mais ci mom grand ababa yaa ngi may dégg est-ce que bu baax ma lay dégg bu baax ma lay dégg bu baax xam nga tay xam nga tay Amadou limu wax de 100% nak anduma ci. mais am na fu mu yemale débat bi foo xam ne ànd naa fa ak moom. Mm-hmm. Mm-hmm. muy fan. muy fan mooy mooy Nabou Leye. Aziz mm-hmm. Dabala dafa dafa dee. dañoo rey Aziz Dabala ak Waly Gano. police scientifique ñëw. oui koor koor yëpp ñëw. oui ñu def autopsie. police jël dossier bi jébbal ko tribunal. procureur. puso bi tribunal waaw léegi rek mooy tribunal rek lépp daal tribunal rek laa mën a wax. oui mhm. police kon ça veut dire que ni kon police enquête bi mu def setalul Nabou Leye. Mhm. Mhm. kon Nabou Leye li ko setal jógewul ci policier yi de li fan la jógee. du procureur aussi fan la jógee. du du police du procureur. parce que voilà. avocat avocat ñoom Aziz Dabala bi nee na. avocat bi nee na. léegi point point par point Juste du juge bi joxe provisoire bi. waaw maa ngi ràgg naan mu mu expliqué. mais c'est-à-dire de ah, dama bougon. point par point xam nga xam nga xam nga da nga ni c'était wul ah, police c'était wul ci procureur bi ah. waaw non wul police c'était wul ci procureur bi. c'était voilà. n'est-ce pas voilà dama bëgg Amadou hmm, may ma deux secondes. loolu la wax la wax. voilà léegi amul amul xam nga taxaw ñu ñu débat après yow su ma paree nga jël. Amadou ñu jël sa ah, micro Abba na noppi Amadou da ngay tëj tamit parce que mënoo fi indi li nga xam ne ay cheminement yi nga xam ne pratiquement ça ça ne tient pas debout diñ fi indil ay affaire politique diñu fi wax ay jomaay ay Sonko non pratiquement waxu politique moom jeex na quoi non Amadou Amadou man tay laa la mos léegi rag continuer ci wax man la ci panel bi li nga bëgg indi ci panel bi ñun on ne marche pas comme ça aussi qu'on se la vérité Fra fani yi fan de xana tay mom dafa dugg ci ci débat politique rek mais fani de doon na fi yëg de Ragnard man depuis cas bi commencé ba léegi j'ai été toujours ici c'est la première fois que je l'ai entendu tey laa ko muus a dégg. waaw léegi garaaw léegi garaaw ñu bàyyi ñu bàyyi loolu ñu bàyyi loolu. ñu bàyyi loolu jaka amul ñu bàyyi wax politique mais Ragnar continué. waaw léegi Ababa loolu laa wax. loolu ñun on en train de discuter ah. ak Amadou ak Thiam ñun ñëpp on discute ah euh, ñun ñun xuloowuñu de te panel bi nii. je ne pense pas que mos fi fekkee ay werenteeg ay euh, kii diw noppil na diw wax fii ku ci nekk da nga ñëw nga indi xam-xam bu leer di ko teg ñu ciy waxtaan donc on on, on va continuer calmement s'il vous plaît mm. ñu ñu ñu xol yi te mm. peut-être que ki une réponse bu d'accord mën d'accord mais ñuy quoi mm. s'il vous plaît hein dafa am lu dama bëggoon deux secondes avant ñuy parce que que yow sa Amadou vous avez avancé que ni amna ay changements yu am yu nga euh, dafa dossier wu Aziz Dabala ak Waly moy dañoo changé ki yoron euh, ki yoron dikk xawma ak euh, mhm. xawma lan yan changement nga waxoon commissaire Adramé Sarr voilà voilà léegi Ragnar dafa wax léegi mu ne euh, dik amul problème def nañ sen enquête envoyé nañ ko tribunal procureur bi aussi mhm. amul problème à son niveau donc lolu mhm. dafa dindi li nga wax sank déjà parce que da nga ni dañu changer les les chefs yi nekkoon fofu parce que effectivement il y a de la politique dedans donc loolu rek setal na ko man soxlawul may joxe une réponse foofu déjà parce que la réponse est déjà donnée. déggoo li ma wax de dama ne. waaw waaw déggoo ba léegi li ma wax de. yow Amadou jégal si micro bi Amadou Sow. abaa <laughs> ba dama ne. dama ne Dabala dañoo rey Aziz Dabala ak Wally ci appartement am n'est-ce pas. dik def ay enquête am. police scientifique ñëw. ñëpp ñu def seeni enquête nest pas. Mm-hmm. ñu jël ñu jël ñu jël dossier bi ñu jébbal ko procureur bi. Mm-hmm. ñu dem procureur bi ñu yóbbu leen sous mandat de dépôt. Mm-hmm. n'est-ce ban juge moo leen libéré ñoom Nabou Leye juge bi leen libéré est-ce que am na droit libéré doomu aadama. d'après l'avocat d'après avocat bi amul droit bi. parce ah. que c'est un juge intérimaire. juge intérimaire est ce que am na droit libéré doomu aadama te enquête bi doon déroulé wu jaar si yoon bu baax si itinéraire ah, bu baax déggoo lu wax dama ne la avocat bi ci boppam moom nee na kooku amul droit def loolu yoon yoon yoon mayu ko ko mais waaw mais avocat bi ba tey ŋàññul ñi def enquête bi ki libé ki ki jox na bu liberté provisoire la effectivement ah kon yaa quelque mhm. chose d'accord naa ak yow

dañ lay xam nga tey mu ngi tey ngay ngay jël benn nit ci bërëbu liggéeykaay. Hmm. di nga ko wax ni carrément ni lii ak lii ak lala hmm. sa lala sa doole may. Hmm. sa doole mayu la lii. nest pas ma je pense que ni juste intérimaire boobu wax nañ ko carrément li mu mën ak li mu mënul. voilà am déet. non effectivement comme déggoo la wax dama d'accord naa ak nga wax parce que avocat bi nga xamante ni moom mooy liggéey ci biir dossier bi nekk biir tribunal. Carlo ak juge bi ba xamné ki c'est un juge intérimaire mu xam lan la ko yoon may ak lan la ko yoon mayul moom moo ne amul droit def lolu donc y a problème effectivement. kon juge bi waaw kon juge bi ban kattan la wara a am mom ba def lu ni mel lo xamanteni dole mayu koko lolu lolu xam nga kañ lañ koy xam ah. wa moy avocat bi nga xamanteni mom mo moo bind ci post Facebook mu né lolu du yoon te bind na le procureur général parce que koko mo leen wara a procureur général mom mo leen wara a ñom ñaar. Il y a le procureur de la république y a le procureur général procureur de la république moo le dossier bi jox ko juge d'instruction Il ko de instruire dossier donc bu bu nga xamante le avocat bi am na lu dossier bi moom du bind procureur de la république Le procureur général bi nga xamante ni e procureur de la république yilif juge d'instruction bi kooku lay bind mu ne ko le juge d'instruction intérimaire jël na benn décision bu nga xamante ni yoon mayu ko mu jël ko parce que warul joxe liberté provisoire parce que c' est un intérimaire léegi yow mi nga xamante ni yow yaay procureur général atte ñu ci loolu noonu mu leer kooku moom moom moom def na li mu war a def parce que wax na ko nee na man def naa sama sama liggéey moom mooy ka ma war a joytu dem naa ci taabalam ma joytu kooku nag léegi moom moo ko war a jox une réponse léegi nag réponse boobu ñun buñ buggee ñun ñi nga xamante ne dañoo nekk ci panel yi man ma nekk sama biir kër tëdd sama biir salon yi dugg ci panel bi di wax keneen def noonu keneen def noonu ku ci nekk toog fa nga toog mu neex ba dee ngay naan sa ndox mu sedd yaa ngi dégg di wax moom mi nga xamante ni moom moo nekk ci biir tribunal ba di fa liggéey moom